bi euh, le ministre euh, Abdoulaye Seydou Sow Djité joxe instruction jox ko suñu coordonnateur Massiam pour nous travailler sur les les questions de la salubrité au niveau national. ci lolu ci lañ mettre en place des dispositifs un peu partout au Sénégal bu ngeen gisee Dakar depuis deux ans maintenant ñi ngi ci liguey ba lolu motax yalla def ñu am euh, résultat yi nga xamni mom la population yi apprécier dans la région de Dakar ci biir lolu au Sénégal Yamour Dakar le ministre ak le coordonnateur aussi nous ont instruit à ce que nous ñu ñu jël suñu moyens d'aller les déployer encore dans le reste du Sénégal parce que les Sénégalais sont d'égale dignité donc propreté propriété ñu Dakar moom dans les autres régions du Sénégal ci biir loolu si lañ déployé wu jël ay dispositifs yu am solo yóbbu leen ci région yi moo tax euh, bu ngeen demee ci capital régional yi ak capital départemental yi di ni euh, situation de de de situation collective bi ak situation balayage bi amélioré non na bu baax foofu. maintenant problème bi ñu am rek moy euh, route nationale yi ak entrée ak sortie de ville yi comme ni nga waxé boy dugg ci deuk mbalit ñu moo lay teeru booy génn mbalit mi moo lay accompagner. ci bir lool nak c'est la national Mass jox ndigal nit ñi na ngeen mettre en place ay dispositifs yo xamni data tax ICG nek fep moo tax ñu déployé wu ci axes nationaux yi c'est-à-dire de Dakar ba Tambacounda en passant par euh, Mbour Fatick Kaolack et cetera de Dakar ba Rome ba dem ba Touba dem ba Linguère dem ba Daara de Dakar ba Saint-Louis a jaar jaar Thiès jëm Louga ak aussi parti bële nga xamante ni moo jóge Tëngéej jaar Sangalkam Bambilor Bayaax dem ba Kayaar axe yooyu yëpp di ngeen gis ni à partir de tay déployer nañ fa ay dispositifs yo xamanteni 24 heures sur 24 heures liggéey yëpp dañ fay nek pour les luñu gis mbalit ci yoon bi ñu jël ko. permettre aussi aux populations aux au au villages riverains ñom aussi ñu mën di jëlaale sen mbalit lolu dina participer à ce que suñu axe routier yi nit ñi dinañ mën voyager sans pour autant ñu gis mbalit ci dëkk bi Entre sorte de ville aussi dinañ ko maîtriser ba nga xamanteni légui euh, mbalit mi dotul a gàtt dotul a gàtt dootul a teeru ba paré gungé la lool dal moy euh, challenge bi nga xamanteni mom moom la ñu moom lañ démarré tey di ci lancer appel population yëpp ñu japp ci ñu xamni propriété dëkk bi du affaire u ICG mais affaire population yëpp la donc ñuy lancer appel population yi ñu accompagner ci loolu ñi nga xamee ni dañuy tukki dañuy voyager dañu tàmm Sénégal boo nekkee ci kaar sax boo lekkee ba pare da sànni ñu leen di wax ni booy voyager léegi fépp foo dem ci Sénégal di nga gis oto mbalitu ICG bu nekk foofu ñu jël euh, yi salte yi takk ci mbuus boo rombee oto ICG nga jox ko agent yi naan ko ñu daal ko def ci ci ci ñu def ko ci oto yi mbalit yi daat ko yóbbu.